ci ngaay ngi leen di nuyu di leen ziar dama leen di laaj benn laaj lu waral Sénégal di jéggaane ji ay dàll marakis bitim réew te Maroc nanguwul benn dàll marakis buy dugg Maroc lu waral loolu lu waral tey jën gu baax marché central au poisson bu Dakar ñu ngi ko tuddee marché marocain lu waral léegi ñuy jéggaane jën Maroc alors que ñun ñoo ëppale Maroc plage lu waral dañu jaay suñu géej ba mu jeex Sénégal bokki ngaay lu waral tabaski bu jotee wala màggal wala mawlut deru Sénégal yi deru xar yi ñuy rendiyee ñuy jaar fii di dem Maroc wala di dem itali ñuy dellu si di nekk ay sac en cuir wala ay dàll wala ay salon à cuir mel ni ni ñun xarañu ñu xamuñu suñu liggéey lu waral loolu tey ngaay moo war a nekk capitalu cuir Afrique de l'Ouest dama gën gis ñu def fi centre de formation boo xam ne day jàngal xale yi Sénégal yëpp lépp de dem ci der dama gis ay banque nekk fii banque yoo xam ne day financer artisan yi te fii lay nekk ci ngaay dama gént ngaay camion yi di fi jël di yóbbu ay marchandise muy dem Dakar di yóbbu ay marchandise ñuy dem Saint-Louis waaye di yóbbu ay marchandise ñuy dem Mali Bamako ak feneen te loolu mun na nekk mbokki ngaay ñun am nañu droit war nañu gént ni dañ fi am ay usine yuy liggéeyal suñu doom liggéeyal suñu suñu réew liggéeyal Afrique de l'Ouest loolu war nañ ko mën a génn parce que xarañteef baa ngi fi parce que der yaa ngi fi parce que doomu aadama yaa ngi fi parce que xaalis baa ngi fi lan moo mooy njiit yoo xam ne dañuy jiital intérêt Sénégal ci seen intérêt sañ nañu gént Sénégal gi yëpp ñu koy béy ñaay geeg vallée vallée du fleuve Casamance mu nekkaat jardin de l'Afrique de l'Ouest